جنا قلبه لله مالك الملوك وعيد الحق المبين لله مالك الملوك وعيد الحق المبين ba ko tax lu tax mu wax loolu yuxrijul xayya min al mayt yuxrijul mayt min al xayya loolu man dama nekk ci biir ndaxte yàlla nee na ma neexee ma génn lu dee ci lu dund génn lu dund ci lu dee ba nekk ma génn ci lu dee moo tax ma wax loolu lan mooy génn ci dee mooy say bokk yi ci ëpp yëpp nekk ñoo ci jullit yàlla def na nga génn ci jullit ndaxte man séeréer laa sama baay séeréer la sama maam séeréer la sama ñëpp séeréer la ñu dégg ñu wax sax waaye sama baay ak baay yëpp yëpp képp a tuub ñu def yëpp tuubuñu loolu tax man nekk ci biir aay boobu nga sant yàlla bi nga xam ne nag moo ne mooy jël guddi gi dugal ci bëccëg bi jël bëccëg bi dugal ci guddi gi ndax tey defe naa noonu kenn war ko réer ndax fi ne kenn gisul ko guddi gi guddi gi moom ci biir bëccëg bi na tuuti bi guddi gi daf koy wan kenn ba kenn dootul gis jant bi boobu boo rek moo ma di moo ma ta léeru moo ma ta yaakaar moo war moo ma ta jàpp ndax buur la boo xam ne bii uti naan nit dinaa bu ñu santee buur boobu nag sant ki nga xam ne itam moom la buur boobu yëg moom la rus moom lay dimbalee ku ko neex mooy Mouhamed ibn nit la comme ñun am na ndey am na baay waaye yemul ak yàlla moo ko sànn ci boobu nit amul jinne amul malaayka amul asamaan amul suuf amul àjjana amul dara amul kon kooku amul ku mu la jëndal ba ñuy xalaat ñu màggal keneen bàyyi ko moom moom la moom la ñuy wax màggal bala ñuy paase ñu ngi sant oustaz oustaz Ndiaye moo xam du rafet ta ba pare itam ñuy wax ne innal karima la yataha bil kiram loolu moo nekk ci moom karimil xalqi mustamsik bii ndaxte am na jàngkat yu bëree bëri dañuy iñaan te moom am na fu ñu daje woon te loolu dox ba léegi ba moom te am na jàngkat yu bëri yoo xam dañuy jàng waaye dañuy iñaan bëri na trop ñu ne moo ci ëpp parce que jàngkat ñaare boo ko waxee lu nekkul ci kayit bi dafa naan loolu dëgg te li yàlla wax ci li yàlla leeral ci Quraan ba nit mën ko jàng li nëbb moo gën a ëpp ëpp na kaamil kenn mënu ko bind ndaxte li ngeen koy xamee ba Sëriñ Tuubaa di wax naan soora lamina maa lamina fawqa lamina li la tiyaaya booba jëmmam jëmmi baatinam bii jëmmi saayaram fekkewul loolu baati de ko fekk ba woy ma xam loolu لا لا جمال الدوحنا لولا كما خلق صرف ولا حمر ولا نجوم ولا نهر ولا حرم بابا جمي لا ويلون باتن بوكون مجلوات لو انه نصر هذا لا نصرنا أبان من نوري نوري ذا بالألم بمو لا عليكم بابا جمي باتن بيت لا والنور سايد البوكو فكي موضع الله بوكو بلي سيتي كي انا يترمزي بني راوتي di jàng nii di ñu rawatina ci dënn yi la ne yàlla nee na ku ma neex ma yëkkati ko ba ñëpp seen ko ku ma neex ma daaneel ko maay fal nguur yi maay daaneel nguur boobu nga ne kenn du ko fal kenn du ko fali te koo leere ko dul yàlla yàgg yàgg dina daan neen Mouhamed li muy leeree dalabe li muy am am may lu muy baax baax boo wéeree ci moom bàyyi yàlla di nga toog parce que Mouhamed yàlla bindu ko pour mu ko xelal du ko xelal jox ko daraja du consulter ndigal du ko wéttali yëkkatiw ko dara la ko mënalul yàlla la neex rek ci baaxam mu tànn ko nekkoon abi bii waaye rek du du Mouhamed defal yàlla bu ko neexoon ci sanseem mu ne léegi maa defal loolu Mouhamed di ñu naa ko def naa keneen ci mën kon nag benn boobu yàlla rek moo mën a jàpp. Hmm. moom nag li nga koy bëggee mooy xaritu yàlla la naa ko bëgg mu roy ci moom waaye boo ko defee comme yàlla safara ngay def ngeen xam ne yowal xiyaam yowal xiyaam kenn mën ko dugal leen àjjana ku dul yàlla. même Mouhamed même Mouhamed mën na dugal leen àjjana rek ndaxte ku yabu seet. لا تهدي من حببت إن الله يهدي من يشاء إلى صدق تقي لول مخ يالا رك كو سال يا غدا ما مخ رك بنو جوبال كولا نيه من ما سيت كو نيه جوبال كو كون لو بك بك نيت لو لو اكو ولا دون bu ko yemal ak yàlla yàlla moom yemal ak kenn ndaxte ni ngay koy xamee fi mu ne ni ñu toog nii di wax yàlla di wax Muhammad yàlla la neex bu ko neexoon ñu wax leneen loo xam ne lii ëllëg daf ñu indi musiba waaye nag moom la neex mu ne yéen ñëpp da ngeen bàyyi seen soxla ak seen bëgg-bëgg ngeen dem ci place defal ko comme nii ngeen tudd sama tur jare bi ma dara waaye ma defal leen li ngeen bëgg kon yàlla boobu kenn gënu ko baax mooy buur bi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne képp ku ko jàpp doo torox te mooy buur bi nga xam ne kenn waru jël leneen jiital ko teg leneen ci koom déedéet moom na toujours ne nekk ci na nekk ci sa kanam yeneen loolu daal di def ci gannaaw gannaaw ndaxte fi mu nekk nii aaju bu yëngatu nii lu yàlla dugg ci du sotti lépp lépp lu mën a yëngatu ak ku mu mën a bu ci yàlla ji rek taxaw lépp yàlla la. daante bii ki ko defar du du ki ko la ndaxte bu ci génnoon bu téyewoon loxo ñi ko defar duñ ko mën a taxaw baax bii ki ko defar nii machine bi ko defar yàlla la ndaxte yàlla moo préparé ki ko defar. def kooku muy gént muy di ko xelal ba mu defar machine bii dugal ci ndox yàlla defar ko mu ne nii kon boo yéemu yàlla nga yéemu rajo bii di wax nii yàlla la ndaxte bu neexoon yàlla ki ko defar kooku du ko mën a defar moom nag moo sant ko defar te te a du wax ndax kun rek rek bëgg moo tax mu naan xalaqa samaawaati wal ard waaye yàlla du téye nii di def kun rek wax lu mu rek a sotti ci saas ndaxte ku ne xam ne ne ba mu nammee Mohamed taxaw dafa jël ci leeram sànni ko ne kun abi bi rek mu nekk leer boo xam ne bii dafa nekk foofa ba mu nekk ko mu def ci àjjana def ci sawara def ci asamaan juróom-ñaar def ci suuf def ci nit def ci jinne lépp loo xam ne lii neex na ko moom yàlla te kenn fekkew yàlla boobu nag naan la nit di mën a goree ba ba ba du ko fàtte moo toujours bul seet ci kilo féete kaw ndax dañu ne booy dox bu dee julli booy dox na nga xool ci suuf boo xoolee ci kaw faw di nga fa kattan ndaxte faw nga gis ku la suuf ba ngay xool ba nga xool ba di nga fakkartalu ba gaañu gaañu boobu xam ne ñun naka lay fas waaye deel xool ci suuf boo xoolee ci suuf doo mën a gis ku la gis ba nga di ko ñee kan moo mat a ñee kan moo mat a bëgg kan moo mat a jàpp ki nga xam ne rek toujours xolam mu ngi ci buur bi nga xam ne bii borom doole la borom kàttan la te fa ñëpp la wiita ñuy toog fii di ñaan ñaan gii fukki at ak ñaari bakkan bi toog sama wet di doom ci kër gi yàlla ji Mamadou Ngom di ko jiite ak i xaritam lolu jarna sant yalla jarna sant sant tam bi jarna sant borom bis bi nga xamni modi moo di ajaratu Mariétou ndax ñu bari yéene nañu defal seen bop wala defal seen wajur te yalla antawu ko kon ñun bu ñu ko mébatee at mu rat jot te mébat bi yëpp it aajowul ci ñun xanaa aju ci àllaaji ma Ngom moo wax ko ci at yu bari ca gannaaw wane ni bés bu waxee nit dañ koy def ci boobu lañu koy def waxtu noppee xaar itam pour ñu def ko itam danañu xaar ndax bu ko waxul duñu ko def kon bu yàlla defee itam at mu nekk bu ko waxee bu desee ñetti fan bu desee ñeenti fan bu desee weer bu desee juróom weer yàlla rafetal ko ba mu dàq na mu daan mel kon sant yàlla mënul weesu lool ma xamal leen rek ni leen kër gi amul cant boo xam ni dina ko yemale penn ci alaaj Modou Ngom ak ci dalal yu xayraat ndax ñépp xam nañu ni bu ma bokkee ci njëkkoon ci alaaj Modou Ngom it xëy na yàlla def na ba sama jataay ci wetam wàññeeku na bu bare def ma tiis itam waaye taxul ci melokaanam ci jëfam ci yéeneem ak ci ñaanam ci man ak ci waa kër gi dara wàññeeku ci doon naa waxtaan ak sama benn mbokk ma ni ko waxtu jàng yi damay tiit damay tiit ndax damay yaakaar àllaaji ni bu ah, ñëw ci jàng yi wala dalaalu xadaat bu ñëw te bu keroogee dina doon suma gàcce gu réer réer réer ba ba ñuy agsi kaw la ci kaw nen lay toog ci li wolof njaay di wax ci kaw nen lay toog am na lu ma mënul wax waaye ñëpp xam nañu ni dooma woon na àllaaji Modou Ngom àllaaji Modou it yaayoo woon na ko wax naa ko fi xëy na am na juróomi at wala juróom benni at jataay bii ñu bare tooguñu fi woon kon ren damay loolu rek ci kaw wanale leen li gën a taxit ma won leen ni moom doomam la bi yàlla defee soxna si feebar feebar bu metti ñu jële ko fii Kaolack yóbbu ko Ndakaaru ñu enterré ko docteur yi wane ni feebar na feebar boo xam ni il faut ñu opéré ko waaye opéré bi dañuy nëbb la ca nekkoon waxuñu ñu ko dañuy rek danañ ko opéré ma jóg fa wax ko alaaji ba ñu toogee ba jëmi jamono sama mag ajaara bi dem Ndakaaru ma nekk fii ci kaw la moom alaaji Modou Ngom mu feñu amé salum Boy feñu amé salum Boy jël loxom teg ci kamil ni ko na nga wax mustafa ni ko sama yaay mareeti bu ko kenn opéré ndax mom kilifa la kenn war ko opéré te opéré bi amu jël amé salum dima wut dima wut ba fekk ma bureau Papa Ndiame Sène ci ci janoog cathédrale bi ci Ndakaaru ca taaxum kaw mu ni ma man day dama la doon wut parce que allah ji nee na maire bi bu ko kenn opéré ma ne ko ah mu ne ma ne ko ah kon de kenn ko opéré ma dem wax ni bu ko kenn opéré jóge fa bisi fii ci kaw la ma fi ñibbisee sama doomu jaay bu ñuy wax maam Maxtaar ñan dem seeti àllaaji mu yóbbante waat ko ni boo demee nga ni Moustapha soxna si bu ko kenn opéré parce que waruñu ko opéré mu dem di ma wuti gisuma mu aw ci papaam ci ñu ma tuddee yar ma wax ko ko ma jóge fii ba ma fi jóge itam aw ma ci élage guddi la wetu timis awuma ci élage ma continuer dem Ndakaaru ba ma demee Ndakaaru ma aw ci eaux et forêt ci Mame Makhtar fekkuma ko fa ma jóge fa dem sama nijaay mu ni ma àllaaji day nee na bu kenn opéré si yaay man ka wax de kon nag kenn war ko opéré kon de dinaa dem hôpital li tax àllaaji wax ko am na lu xew ma ñëw buntu hôpital ni leen dama bëgg dugg ndax sama yaay daf ci hospitalisé te dañ ko war opéré te kenn war ko opéré ka ca buntu ba ni ma yow yaa sob yaay seet ku ñuy opéré wala ku ñu dul opéré demal sa yoon danañ ko opéré ba nga xam ne ni caaxaan dem na dëkk des te ma xam ne kii duma ci ma dugg ma yenu ko daa nekk ci suuf nit waa hôpital yëpp taw ñëw xanaa dafa dof xanaa dafa dof am benn manéwal bu ñëw ni yéen bu leen xool ci yéen yi mu sol ki ingénieur la ca phosphate ca Thiès jaawale ma ak sama mat bu góor yaayam kii la hospitalisé si ñun kon bàyyi leen ko mu dugg ma dugg ñëw ci poste de garde bi daal ni leen euh, soxna Mariétou Niang laay laaj ñu ngi ma defar nañu ko ba pare dañ ko war a opéré ci fajar man leen opéré maanaam man kenn opéré ñu ne ah léegi boo bañee ñu opéré da ngay fanaan ko ci buntu hôpital ba fajar docteur bi koy opéré bu ñëwee nga waxante ak moom man leen du ma def noonu ana ki nekk de garde mu ma man ma ne que na nga bind ci carnet de garde bi nii discours yi bu doxee ci biiru mare bi ñan ke ka ci def bu dundee bu dee dinaa xare ak ku mu mën a doon bu discours doxee ci biiru mare dinaa xare ma daal di jël place taw du ma taaw ma ni may taw maa ko fi indi buñ ko defee dinaa xare mu mu bañ ma ne bi nga ko bind mu bindee ko mu signé ma signé ma jóge fa dem bi ma demee xadar boobu daane ma ma feebar ci guddi yeewu bi ma yeewoo biddanti bi may dem jóge suma kër suma néeg di dem sama woto gisuma sax dama doon jafandu ci garab waaye yàlla yóbbu ma ba ma àgg buntu hôpital bi may agsi buntu hôpital gis ñu lënd ko di ko génne ba ñu ko lëngee di ko génne man lii lan la ñu génn nañu hôpital nee nañ comme kenn ko opéré dañ koy dàq hôpital ma leen waxuñu dëgg ñoom kay nañ ñu duñ ko opéré waaye du génn hôpital bi ma dellu dem ci ma njaay ne ma lu la jot ma ma yaram yëpp ci biir ma dem ci prévier yàlla defit nekk chambre onze ba mu nekkoon ñu ngi sant dalaayu xayraat seen yóbbante ñëw na fii suma kër waxoon naa ko fi daaw du ngeen daayira bu ñuy duye da def seen bopp bu xaritu yonent ku xaritoog yonent bi xaritoog yéen li ñuy def fii bés bu ñu ko jee def rek seen jëf-jëfangi wala ngeen ànd ak moom ñëw wala bala ngeen di ñëw seen jëf-jëf jiitu si leen loolu itam am na lu mu wane seen woto yi ngeen di taal kenn jox leen essence kenn lu yëru leen ko yéen jël seen woto jël seen essence Thiès jóge jógee ñaari téeméeri kilomètres dem ak ñeenti téeméeri kilomètres seen soxla ñëw yàlla na ko yonent bi gis te fay leen fay dundoo wax ji jarul guddal yàlla na yàlla def rek li ñu fi ñaan yàlla jottali ko Marème Niang ak ñoñom ak mbooloo jullit yàlla na yàlla defi njukkal bi wàcc ci ñun wàcc ci Kaolack wàcc ci Sénégal ba ku nekk am ci bu ko defee rek ñu gërëmati leen sant leen alaaji nag alaaji la rek du sëriñu ma demba du sëriñu ma sàmba dàqul murit ba dàqul tijaan ba dàqul xaadir ba li mu wax ñeme na ko te weesuwu ko nee na juróomi yëf rek yàlla yonent bi sa ndey sa baay sa mbokkam jullit bu loolu wéyee tegoot ci leneen ku naan yàlla nag ni yonent bi wàccoo naag ki la sos ak ki tax ñu sos la bu la nee sa ndey sa wàccoo naag fi yàlla awal ki tax ñu sos la bu la nee sa mbokk jullit na ci mbooleem ñañ ñoo xam ni ci ngeen tax ni moom ngeen yaakaar kii yaakaar kalaaxe mu di Muhammad kon boole na leen ndax moom moo jiite ji ah, ah, diine islam kon kuy woote lolu da ngay jiar te jiar bi defe naa ni génn na léegi frontière Sénégal parce que Guinée Bissau toj na jangu daw ya ba gouvernement Guinée Bissau yónnee kay jox ko suuf so xamni kenn xamul nu mu tollu ëpp na Kaolack fouf kooku lañ tax ñu def ko te gouvernement ba nekk gouvernement catholique amna lañu gis amna lañu xam lolu nak dafa jara xamal nit ñi dafa jara waxit te it ku fit moo ko jaxal moo ko jaral wax ku toll jamono joo xam ni yow rek yaay wax li ngay wax yow rek laa ñemee wax li ngay wax dama ni ku gëm yàlla gëm yonent bi war a xam ni loola wéeru na boo xam ni fu dëgër la te moom allah ji li muy wax du ko wax guddi du ko wax bëccëg ku ànd ak yàlla ku ànd ak yonent bi ku bugg sa ndey teral sa ndey teral sa baay ku teral sa borom julit bugg sa borom julit boo ñëwee ci man sa xarit la dama ni kooku bàyyiwul dara kooku rassembleur la yonent bi loolu la doon doxale loolu la doon defal kon nag allah ji une fois de plus yal na yàlla xeeb dool yal na yàlla yokk sa maqaama yal na yàlla def ni ñi dégg la xol te bañ la xol te bañ la dégg xel ku yàlla bind moo la teg wa ma fi dalika min shakkin amul benn la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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كون لير نتي بوب فوري لير نتي بوب فوري. توك لين يالا توك لين رسول الله أقسم سين سيني لي في نيك موي تي رسول الله لو نيو لين ديغال نانين kooku màggaayam waat naa ci yàlla ne alxaaji Mouhamadou Ngom ci diir bu mu commencé jàngal sénégalais yi orienté leen ci Mouhamad ibn Abdillahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu def ko tajrid boolewu ko ak dara te yonente bi moo wax ci xadis bu wér ne munu leen gëm mukk yàlla lu dul man Mouhamad ma dina leen seen ndey ak seen baay ak seen jabar ak seen doom ak mboolem ñi ngeen di am kon alhaji Mouhamadu Ngom lu mu am moom it lépp lu mu am ci aduna Mouhamad ibn Abdillahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo ko gënal lu fi nekk yëpp ci dalailul xayraat et bu mu yor كل لا يطمح مقلك معنى ذلك فإن سر دلائل الخيرات أخذ في اسم محمد صلوات الله وسلامه عليه كن بني في فكر في مصطفى قال إذا خمنا جنة ولا لكي أبو الله جاء سنو مك سنو مك بسنو خريف جنة bàkkaar te jiite mbooloo mi ala kulli xalin daañu sawar fekk fii saaxibu dalaa'il xayraat ak majmuatu dalaa'il xayraat luñ ci wax mooy ñun de xam nañu ne Mouhamadou Moustapha Fall nii laa am la wa asa xëy na loolu moo tax ñu tuddee Mouhamadou nii Moustapha bu gëm yàlla ak yonente ak guddum ñoom ñu ne ko dañuy réunion dimbale ñu rek ba ñu paree bu boobaa ñu delloo ci Muhammad Muhammad kon def naa ne loolu it lu am la lu wóor mooy sirru bu nekk ci alxaji Muhammad Ngom dana nekk ci Muhammadul Mustafa ndax yonente bi nee na fi xaqi Abu Bakr innama faddalakum Abu Bakrin li shay'in waqara fi qalbi Aboubacar ki ne leen ndey ki ne leen baay xam ngeen lu mu leen ëppale ñu ne aha xamuñu ko de mu ne ngëm ndax man Mouhamad xam naa ne Aboubacar li ma wax rek loola kon Moustapha yow it ñu ngi lay ñaax nga góorgóorlu jàpp ak sa alxaji Mouhamad Ngom ndax wa fi zawaaya xabaaya angal bu nekk am na lu ci ne ci mu mooy ci mu dëgër te danaa ko faral di wax ne ko ci am sa sëy na nga ci woy bu la jëmalee ci yàlla jëmale ci rasulillahi jëmale ci yàlla nee na yonante nee na na ci moy ndax waa yàlla yëpp loolu lañ ci nekk woon bi nga ne ni wax naa li jëm ci àllaaji Moodu Ngom ci sant ba noppi naa di sant Moustapha rakk te naa ba yàlla yontu bi wéyee xam na maay kan te teg na ma ci fanaas yal na la yàlla suturaal te yàlla yokk la di jaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ustaas yang wax léegi ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëgu ko yal na la yàlla màggal màggal ñi nga xam ne ñu ñoo ànd ak yow di màggal ak laay jaar ndax génn xolaa xam guddi na waaye bi dal bu loolu njëkk yow sa jëmm ji moo tax ma bàyyi politique waaye moo dama dalee politique ba bët xale nga waye mo ne ma bëgg ki nga bëgg ki man ma am bëgg ni dong moo tax ma bàyyi ndax loo bëgg ma bëgg ko so demee ba nga xamni am nga sa ñun gis nañ ko ndax li bu ñëw suñu jëmm bopp rek ñun ak lu ñu ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg du ñu def ak mu jot ñu mën ko def dara ni ci reel jii ñu bare mere nañu ma yeglé wu ma ko ma kenn kaat ndax yalla ak yonent ba ak sa jëmm ndax ko yëgal mu yaakaar dafa bëgg nga jox ko dara lii moo war a sax ren yëgaluma ko ma sàmba yëgaluma ko ma dem te fekk na yow yaay def lépp ak yépp député bi sunu kanam def lépp di ñaan ñaan yi nga ñu fii ñaan ak tudd yàlla gi ci tudd yàlla yal na ko fekk ci àllaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko màggale fii yal na fekk sama yaay ju baax ji ci àllaaxira yal na ko fa fekk ci àjjana ci dara ji yonent bi ak ña mu fa fekk ak ña ko fa fekk bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf nga wax ji nag mënuma ci gudd ndax su ma ci guddee xëy na ma wax loo xam ne li sax dina ëpp waaye maa ngi leen di ñaan ngir yàlla bala ngeen di commencé ngeen seet yàlla rek ñëw dugg ci biir kër bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yal na fi yàlla wàcce jàmm lépp lu fi ku fi waay bëgg ku fi bëgg indi seytaane yal na ko yàlla dàq bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam képp kuy def lu baax yal na ko yàlla yàlla jàppale Abdou Diouf mi ci sama kanam di liggéey lu baax